xutba yi joxaat ko ko parce que moo ma woowoon ne ànd leen liggéey Sénégal ma ànd ak moom liggéey Sénégal euh, mbiru Adji Sarr Ousmane Sonko ñëw ci diggante bi wax dëgg fa yàlla vidéo yi foo tàppee YouTube internet di nga si gis sama junni vidéo ma siy wax di défendre Adji Sarr gauche di défendre Adji Sarr droite loolu moom ma jural sax tey bu ñu saaga samay ndey di saaga samay baay ci internet

man Kaliphone ku ma yëg ma yëg la ku ma tin ma tin la ku ma yëgul yëguma la ku ma tinul tinuma la euh, mbirum Adji Sarr bi ñi si nekk ñëpp xam ne Kaliphone Kaliphone xam na leen message yi workshop yi bëri na parce que avocat yu jigéen yeeg xam ngeen seen bopp duma toog fi di tudd tur te jour dina ñëw yi xool leen seen i ay téléphone daal xool leen seen i ay téléphone di ngeen gis yan message ngeen doon yónnee Kaliphone muy avocat yu jigéen yeeg jabaru ministre yeeg xam ngeen seen bopp quoi te jour yi dina ñëw ñu tudd wane message yëpp yéen gën a xam kuy Kaliphone avocat yooyu doon mu bind di wax naka su dul noonu Sonko defal nii defal naa ba ma nekkee naqar ci prison bi ba génn gisuma sax seen message salut Kaliphone courage ma am dëj sama mag mu bokk ak ndey baay génn àdduna binduñu ma sax message Kaliphone massa ñooñu la euh, kon cela veut dire que yéguñu la tinuñu la te problème bu ñu mës a am dañ doon ñëw sa workshop di la bind Kaliphone défendral nii même Aïssatou Diop Fall ma koy wax fii en direct bu TFM dama koy jéggalu sax en direct amoon naa numéro dama ko supprimer dinaa ko wutaat audio jéggalu am na ay temps ma audio si suuf wax ko kàddu yoo xamante ni xam naa ba muy dugg suuf du ko fàtte loolu yëpp lu ko waral it euh, euh, avocat bu jigéen ba dinaa si ñëw parce que Aïssa Diop Fall laaloon na borom këram moom mooy tari ay Fatiha yi kenn xamul ñëw si suuf attaqué ma Aïssa Diop nii a ma dem si Aïssa Diop Fall tey moom sax jox numéro ba moo ko ku gore ñu gore ku gore di ñu gore man kenn moomu ma du seen dërëm bu jóge si yéen ñëw ci man dëkk bi yëpp ñu ngi yaakaar ni Kaliphone ba muy wax si Adji Sarr Adji Sarr dañ ko jox sangam sàngam amul ku mës a yëkkati 1000 francs ne ma ñoo la jox lii ndax li ngay jàppale Adji Sarr amut man maa doon jël sama alal di ko defal Adji Sarr Adji Sarr gore di koy xool ba ñëw si moom da ngay toog dafa gore di ci dinaa ko wax fii mu may dégg ay mboqam mi ngi may dégg parce que mënu ma toog ay at at di défendre Adji Sarr Souvent, mon ngoon de la vidéo de France di ko 4 h du matin 5 h du matin ça daf may vidéo lu mu xam wax ma li ma xam wax ko bu sonne wax ma may nekk France di dem ba ci ria bi di jël sama xaalis ak samay maigre moyen muy joxe turu tantam ma ko koy yónnee di ko dimbali ñibbi si Sénégal du benn du ñaar ma dem ba fu mu nekk mu toog ma toog ma koy yëkkatil ay pizza di ko jëndal ànd ak samay frère parfois samay sœur mu doon wax sax nañu yëg ma ne leen déedéet jarul ñu yëpp ci kaw parce que temps bariwul di ko jàppale di ko taxaw Adji Sarr ma nekk kaso génn Adji Sarr du benn message am mu ne Kaliphone ma am dëj aji saar du benn message am bu mu nekkali siggil ndigaay te aji saar sànq si weesu mu ngi gis sama statut maa ngi gis statut donc xam naa ni sax damay def nii rek animu euh, fii waaw mu ngi nii il a 18 heures lii la dugal ay alxuraan ak mu ngi ko dugal depuis 3 heures 4 du matin donc dinaa supprimer léegi numéro am sax bloqué ko en direct aji saar mënu ma apportel ñaari salaamaaleykum man maa ko doon apportel dinaa ñëwaat tamit suy bëri ah incha allahu rabbi ah. donc dina aussi parce que man commerce euh, euh, sa problème nak problème la profil ce nga profil li nga def profil bu lan nga ay euh, je te bloque directement en direct Facebook ma bloqué la supprimer, bloqué bloquer bloqué mu ngi ma numéro bloqué ce la après ma supprimer numéro ok sama répertoire mu dañ fa amalo ma prof. Hein? man soxlo mo dërëm bu ñu def Adji Sarr ñëw ci man mais li ma défendre Adji Sarr ci kaw suuf mu ngi gis samay sa Kaliphone massa mais aduna ngi nonu am nañu numéro ma bloqué légui ñi di am xaaliss ci yow ñi di la door ay kurpañ ngay muñ kurpañ yoy ndax xaaliss bi ngeen di am lolu sen problème la après ngeen gérer ko ok supprimer supprimer numéro Adji mu ngi ni en direct supprimer amatuma sa numéro soxlawuma sa numéro tey yooyu say yeneen mbokk ak yéen ñëpp soxlawuma ci kenn